mbokk yi ñuy déglu gannaaw bu ñu sante yàlla bi sallallahu alayhi wa ñu ngi del ci beneen yoon di nuyu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñu ngi toog ci jotaay bi toogal fii président de la république jiite ci ministre Koura Ba ànd ak suñ xarit suñ soppe Assane Diop ci teewal maire dëkk bi Abdoulaye Diack ak gouverneur dëkk bi Bokar Diallo ci teewal Matas si Diallo ba tey teewal suñ kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi woon léegi jumaa jaa leen ñu dellu muy Cheikh Ahmed Ibrahim Niass nga xam ne moo fi représenté woon sëriñ bi tey Alaaji Abdoulaye Ibrahim Niass Alaaji Ousmane Niass itam mi ngi àndoon ak moom di nuyu itam ci jataay bi suñu xarit suñu soppe alaaji Abdou Sara Dianka jógee ba Banjul pour teew ak ñun suñu jataay bi di nuyu itam sëriñ aadi Ibrahim Niass mu ngi ci jataay bi comme ni baaxoo fii ak ca Banjul ba tey mi ngi ci jataay bi di nuyu sëriñ Makki Ibrahim Niass mu ngi ci jataay bi di nuyu itam su ma najaay suñu soppe ba tey alaaji ahmad xalifa ñas moom itam mi ngi ci jataay bi nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñi ngi fi teew te dara yëkkatiwu leen lu may bokk ak ñun suñ bés bu tedd bii di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu nga jógee ba Amérique ci ay état yu fasantikoo foofu ci réew mooma Alfayda FM di yu mbokk yi jóge ba Nigeria ne ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi jógee fii ci biir réew mi ak fu ñu fi mën di jógee ko ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan ci jataay tay bii jataay tay bi nag li ko sabab mooy ñu waxtaane lislaam ak la démocratie lislaam ca njëlbeen ci loolu la mës di taxaw ndax diin yonent bi sallallahu alayhi sallam bi muy ñëw fekk na àddina bii ñu nekk ci lëndëm gu metti ci boor bu nekk lëndëm ci wàllu xam-xam lëndëm ci wàllu jëflante doomu aadama ak doomu aadama lëndëm ci wàllu borom alal yi ak seen jëflanteeg way ñàkk ñi lëndëm ba tey ci boroom doole yi ak seen jëflanteeg way néew doole yi ci jamono yu lëndëm yooyu ci la yonent bi sallallahu alayhi ñëw duut ne moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu jëg ñi yàlla yónni ci nit ñi yàlla yónni na lu dem ci téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñeent ci ay yonent pour ñu ñëw jotal ay bataaxel ay téere téere yu xam ne li yàlla bëgg ak ñi ko nangul daj nañ mbugal mu nekk pour taxawal diine jooju jaasut ndax képp kuy oote dëgg su fekkee ne bàyyi nañ la nga déggu rek kon boobu dëgg googu ñorut dëgg su ñoree waxtu woo taxawee pour oote ko rek dana am ñu taxaw pour xeex ak yow seytaane yi ak seytaane nit ñi danañ jóg pour xeex ak dëgg jooju dalee ko ci yonent yàlla ibrahim ñam jamononteet dem nañ ba taalal ko safara sànni ko ci jibril dogandu ko ca biir safara woowa ne ko ndax amoo soxla ci man mu ne ko déeréet soxla su jëm ci yow day awma ko mu ne ko sa borom nag mu ne ko xam gi nekkee li ma nekk doy na walis ma di ko ñaanati yàlla sotti soppil ko safara soosa muy sedd ci moom ndax yàlla dafa digal safara sa qul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim lii yëngatu yépp ci ndigalal yàlla lañuy yëngatoo yàlla moo moom jaan lépp lu mu wax loolu mooy nekk lu mu ne du nekk loolu du nekk safara dafay lakk naam waaye bi ko yàlla na soppi Ibrahim soppeeku na sedd pour Ibrahim ay sew de ball fa muy naan ay meññet feeñu Ibrahima ku bari woon alal la waaye nee na bés bi gën ci bisi dundam mooy bés bañ ko sànnee ci safara soosu loolu yépp xeex ak dëgg moo ko yëkkati woon yonent yàlla Moussa ñëw fi gannaawam moom itam yowoot yam daje topp ko digg bëccëg di ko dàqe pour jàpp ko rey ko moom ñi nga xam ne gëm nañ ànd ak moom bañ sës ci bato rek moo ko mën a jàllale nit waaye yàlla digal ko ne ko na dóor etam wi ca géej ga ba mu ko dóoree ay mbedd géej ga mu jàll moom itam ñi ba génn firaaw naa ak nitam ñi nga xam ne dañoo ñëwoon pour mbugal si leen ñu itam bëgg leen a topp ba moom ma génnee yàlla këpp géej ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu alal ko yonent yàlla Isaa ñim dajeet ñoom itam daje nañ digg bëccëg ne dañ koy rey ba yàlla yëkkati ko jëm yóbbu ko asamaan kon yonent bi sallallahu alayhi wa su ci toppee nekk fukki at ak ñett ci màkka di oote diine jom xam ne kenn mësu koo oote ci mag mu benn yàlla te bàyyi yàlla yu bëri bàyyi xërëm yi waa Màkka pour ñoom ci jamono jooju loolu lu diis la pour ñoom ne ñu ngi jaamu lu dem ci ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk ba tey suñu soxla yi di tag suñ fi bàyyee ñetti téeméeri yàlla yooyu lu topp dem yàlla ko ñun fuñ jëm loolu moo nekkoon xeex bi ñu topp ci ku gëm yonent bi sallallahu alayhi ñu xeex ak yow mbugal la surtout ñi xam ne amuñu ay dëgërluwaay bokkuñu woon ci gor ñi maanaam jaam yi yàlla yëkkati ko jëm yóbbu ko asamaan kon yonent bi sallallahu alayhi wa su ci toppee nekk fukki at ñett ci màkka di oote diine joo xam ne kenn mosu koo oote ci mag nañ jaamu benn yàlla bàyyi yàlla yu bëri bàyyi xërëm yi waa Màkka pour ñoom ci jamono jooju loolu diis la pour ñoom ne ñu ngi jaamu lu dem ci ñetti téeméeri yàlla ak juróom benn fukk ba tey suñu soxla yi di tag suñ fi bàyyee ñetti téeméeri yàlla yooyu lu topp dem di jaamu benn yàlla ko ñun fuñ jëm loolu moo nekkoon xeex bi ñu topp ci ku gëm yonent bi sallallahu alayhi wa ñu xeex ak yow mbugal la surtout ñi nga xam ne amuñu woon ay dëgër luwaay bokkuñu woon ci gor ñi maanaam jaam yi ndax yonent ñëw na ci jamono jaam yi xeet wu nekk ma nga foon jaam yi jógee Furs Faris jaam yi jógee euh, Éthiopie comme Bilal yeen ak ñoom Suhayb Rumi ak Salman al Farisi ak ñoom Ammar mbugal mu nekk daj nañ di leen diri digg bëccëg ci naaju màkkawu tàng woowu rien que rek pour ñu wetti ne ñoom gëmatuñ lislaam waaye Bilaal dafa mel ni moom ca diri woowa ci la àggee ci boromam sax lam doon répété toujours ahadun ahad fardun samad la walida wala walad walam yakun lahu kufuwan ahad ba yonent bi digal sidna Babacar mu jënd ko ci xaalisam ne ko demal nga jaamu sa boroom comme na nga bëggee ñu topp yonent bi foofu ci màkka di xeex diine ji indi bëgguñoo dégg alxuraan ji nga xam na indi na ko ku yëkkati benn baati alxuraan suñ la mënee jàpp mbugal la wala rey la dinañ ko def su yonent bi julli ñu jël ay tojalit ay salte ñëw di ko xëpp ci gannaawam ba doomam sayyidatuna Fatima ñëw di ko fompal gannaawam loolu yépp pour xeex ak ñoom amul doole lu may bi sidna Omar ibn duggee ci lislaam booba la taxaw ne ñii di jaamu xéram yi Alfayda FM nëbbuwuñ làquwuñ ñu ñuy jaamu diine di jaamu yàlla nekk ci diine di nëbbu keroog lañ bàyyee nodd ci gàmb sidna Omar ne na moom itam lislaamam pour commencement bi nekkoon na problème pour moom ndax mbugal yi ñu mbugal gaañi defuñ ko ko mu laajte ñu ne ko sa najaay moo la garanti na bu la kenn laal mu dem ca najaayam ne ko joteetuma ak yow dara man jullit laa yow xeefar nga léegi jëlal sa garanti soxlawuma mu ne mu fàttaliku mu nga jógee ca jàkka ja ñu di ko dóor di ko kurpeñ ci ndeyjoor ak ci càmmooy xotti mbubbam yi ba mu egg si këram ak salaali mu ne mu sogo yëg na keroog moom bokk na ci jullit ñi ndax li ñu daa def jullit ñi suñ duggee ci lislaam ñu continuer ci xeex boobu ba yonent bi sallallahu alayhi digal mbooloo mu njëkk sidna Usmaan jiite leen ak jabaram roqiyatu bint rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne leen nañ daw dem xab lu mat juróom-ñetti fukki nit ak lu topp loolu mooy gàddaay bu njëkk ga yonent bis continuer ñi ca des ak mbugal moomo même lañ daw dem abachakat ca najaasi yu taxut ñu may leen jàmm yónnee nañ ay ndaw ñu toppi leen foofa pour boole leen ak najaasi ku ñii kat dañoo indi ay diine yu bees te dañuy wax wax yu rëy rëy ci Mariam. jaafarante woon najaasi yu oo leen gannaaw bu waa Màkka yi yónnee ay cadeau pour jéem koo nger ne ko dañoo bëgg ñooñu daw ñëw foofu nga delloo ñu leen jaafar najaasi yu oo ko naka lan la mu ne ko ñun dañoo nekkoon ahla jaahiliya di réer di def lu bon di dagg mbokk ku mën sa morom wan ko la nga ko mëne ku am doole wan ko ku ñàkk doole ba yàlla yónni ci ñun yónent bii mu digal ñu lu baax digal ñu nañ nañ jaamu yàlla te buñ jaamu xeram te nañ jokk suñ mbokk yi nañ biir te lépp loo xam ne ñaaw na ci jikko wala ci jëf nañ ko sore najaasi yu ne leen jii day ne ko jàngal ma dara ci li seen yonent boobu di wax mu jàngal ko dara ci suratu Maryam mu ne ko lii day suuf su ba mu jógee mook la isaa ibnu mariama doon wax ñoo bokk fu mu jógee balaa jékki teg sama tànk yi sax yonent bii dana ko ilif najaasi yu mook ñoom ba fay nekk jullit ñu continuer seen mbugal yeeg jullit ñi lu mat fukki at ak ñett ci màkka yonent bi oote ñuy xeex ak moom de fukki at ak ñett yoo xam ne ñu dugg ci lislaam yépp passé wuñ juróom-ñaar fukki nit ba yàlla digal ko mu gàddaay ànd ak sidna Babacar euh, ndey Aysata nee na mës ta gis góor gu kontaan bay jooy lu may bés bi nga xam ne yonent bi ñëw na digg bëccëg seen kër pour waxi si yàlla diggal na ma pour ma gàddaay te yow laay àndat ñuy dem Babacar dafa joxe woon léppam boppam alalam yépp nga ko jox yonent bi ma ngay féete yonent bi ci ndeyjoor joor ak càmmooy ci kanam ak ci gannaaw ba yonent bi ne ko Babacar li lan la ko wax tuuma fàttalikoo ne gaañaa ngi lay ut wala ñu ngi ñuy ut su ma foogee ne ndeyjoor lañuy ñuy dikkee ma taxaw ci wàllu ndeyjoor su ñuy rey ñu njëkk maa rey yow nga dem si yoon su ma fàttalikoo ne su ma foogee ne ci càmmooy la ñuy dikkee itam ma ñëw féete la càmmooy suñuy jàpp njëkk maa jàpp yow nga def su ma fàttali ko suma foogee ne ci kanam lañuy ñuy dikkee ma def noonu su foogee ne ci gannaaw la ñuy dikkee ma def noonu bay sallam yàlla àggale ko Medina waa Medina fat ko fat bu rafet ñu waadu te sañuñoo bañ diine yonent yàlla jenn walis diine yu dëng yépp nekk ci yoon wu jub Ibrahima moo doon moo njëkk nekk moo doon oote diine jooju njëkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feneen mu ne daalika diinul qayib ne diine jooju mooy diine ju jub ci nit ñi xamuñ loolu diine la joo xam ne itam fen du ko dikkee kanam fen du ko dikkee gannaaw ndax lan ndax yàlla moo wàcce moo wa moo ko wàcce yàlla mi nga xañ la kuñ sant ay jëfam moom mu wàcc diine jooju wax na feneen na inna diina inda allahi lislaam diine fa yàlla daal mooy diine lislaam kon ba yàlla yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ji ci la booba ba léegi ba ba pencam yàlla keneen ku jël beneen diine bu du diine lislaam rekk diine jooju wërut diine fa yàlla daal mooy diine lislaam diine jooju nag ñëw na pour jox doomu aadama valeur ñëw na pour teraangaay doomu aadama ñëw na itam pour doomu aadama ñëw na itam pour yëkkati doomu aadama ak xelaatam doomu aadama ak gis-gisinam ci àddina te ba mu demee ba ne doomu aadama tut diine ci loolu sartut melo ci loolu sartu itam nationalité ci loolu wala askan wu mu jógee wala ban làng lay wax doomu aadama rek la yàlla dafa wax ci alquran yàlla teral na doomu aadama yépp edu la ci jéeri ji ci géej gi wërsagal leen itam ci yu teey yi gën lee leen gën lee doomu aadama itam ci ñu bari ci ñi nga xam ne yàlla bind na leen gën a bàyyi ci firi alquran am daanañu wax ne téere alquran yàlla nga ko ubbee ci bismillaay tëjee ko wannaasi mun a nga déggee ci ne àddina bii yàlla ak nit ñi rek ñoo fi nekk li nekk ci diggante bi yépp nit ñee tax yàlla bind ko yàlla waxati ne ee yéen nit ñi na ngeen ragal seen borom bi nga xam ne moo leen bind ngeen tukkee ci benn bakkan bakkan boobu mooy aadama xawaa ci wàll sa càmmooyu aadama la ko yàlla bindee bindal ko itam bind ci ñoom ñaar ñooñu lu bari ay góor ñu bari ak jigéen ñu bari kenn gënut kenn lu may ci sa jëf fii ci lislaam daal ku bëgg a gën sa jëf moo lay teg ca kanam moo lay gën loo waaye deret jii nga juddoo rek mënta tax nga gën kenn ministre bi jàng na léegi xadis yonent bi sallallahu alayhi nit ñëpp ñoo am comme ni peje euh, noonu nit ñi amee loolu lislaam moo ko njëkk ko oote tey ay taxaw nañ di oote ay human rights maanaam xaqi doomu aadama di oote xaqi jigéen islaam ba mu joxee ñooñu seen xaq mooy ca gannaaw lu mat junne at ak ñeenti téeméeri at ak lu topp nga bala ñii di wax affaire yi bala ñi di wax itam affaire yi xaq jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam wéral ko xutba gam xutba ca màkka wax da ca ne yàlla demee na puukare maanaam li doon tiitaroo man diwoo ma jur diw jur ko diw jur ko loolu yàlla demee na ko ak di sa baay nit ñi fi mu ne ñaar rek a fi nekk loolu yonent bi sallallahu alayhi wax nit ko xam ne nit ku xiw la ku ragal yàlla la ku tedd fay nit koo xam ne criminel la ku tedd di fa yàlla la ñaari façon nit ñooñu fi nekk nit ñëpp doomi aadama lañ yàllaa ngi bind aadama mu tukkee ci suuf dal di jàng yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla dafa wax ne nit ñi te suñu waxee yéen nit ñi rek góor ak jigéen ñëpp dugg nañ ummu salamata jabaru yonent bi dafa ci néegam di peñew xaleem bi di ko dimbale ba yàgg mu dégg yonent bi ca Mina mu noon yaa ayyuhan naas mu ko taxawal mu ne ko ayyuhan naas la wax bu góor ñi lay waxat mun ne ko déedéet ayyuhan naas góor ak jigéen ñëpp a ci biir yàlla nee na mu ngi bind ñëpp ñu tukkee ci góor ak jigéen muy aadama ak awa def ñu ñuy ay nation def ñu itam ngir lan ngir ñu xamante nekk gën tedd fa yàlla ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen feneen yéen nit ñëpp maa ngi leen di xamal ne seen boroom kenn la seen baay benn la arab gënut ku duut arab ku duut arab ku ñuul gënut ku xonq ku xonq jë gënut ku ñuul lu may ci ragal yàlla ba pare laaj nit ña teewoon ne leen ndax jotal naa ñu ne ko jotal nga suñ diine ci loolu la taxaw maanaam goreel goreel nit ñi pour commencer goral leen ba nga xam ne duñ jaamu dara lu ma yàlla mi nga xam ne rek moo leen bind elloo itam ñu jaamu ko ngore gi waa Europe Amérique ñoom ñoo ko defaral seen bopp maanaam nit ki goreel na ci lu dul benn condition ci lu dul benn tënk-tënk boo xam ne dina ko tënk moo tax yii xew ca Europe yépp di fa xew tey ci Angleterre ñaari xale seeni at passé wut fukki at ak benn ñoom ñaar ñu daje rey benn xale ba mu xam ne ma nga am ñaari at te suñ duñ leen def dara dañ naan rek majoraguñ li ñu doon def tayuñ ko kenn du leen yar su leen seen baay wala seen yaay doon jëloon yar di leen yar sax téléphone léegi au ñu ñëw jàpp yaayam arnas ko yóbbu ko gore googu jud soxlawuñ ko gore giñ soxla mooy gore gore pour jaamu yàlla gore pour mucc ci jaamu xëram ak jaamu lépp loo xam ne duur yàlla jaamu seytaane yàlla loolu mooy gor dëgg dëgg ci seen turi ngoreel googu ci nga gis ne jigéen ñu bari itam nañ leen ca seeni waree fi kër amatuñ jot pour seen famille amatuñ jot pour yar kenn amatuñ jot pour néegee ndax la wax nañ leen nag góor lañu lu leen lu leen neex nañ mel nañ def moo na ci dix-neuvième siècle ñi njëkk ko oote loolu ci Europe ci ay jigéen problème yu rëy lañ ci am polémique 1791 moo njëkk a génne dossier pour introduire ko ci parlement français yi pour lan pour ne nañ goreel def leen defal leen ay wareef yoo xam ne comme yu góor yi la kooku dañoo génne décision àtte ko rey ko ñu ngi ko rey 1794 bañ ko àttee rey ko itam mbooleem centre yi nga xam ne daa daje ci lañ ko tëje ca Paris ne mayatuñ leen sax ñu yëngatu ñu def benn activité wala ñu def benn daje dossier boobu génnut lu mooy 1977 kenn ñan ñoo ko ñoo ko génne sax Allemagne démocrate ñoo ko génne. wàññin sa topp ci 1981 enfin France ga nga xam ne fa la ñoom ñu soog ko adopté génne ko kon suñ toogee tey di ñu jàngal ñun affaire jigéen ci lislaam ñun ñoo leen war a jàngal lislaam li mu wax pour jigéen ñi ba pare yonent bi sallallahu alayhi jigéen ñëw na ne ko góor ñi ëpp nañ ñu doole ci yow nang ñu defal bés boo xam ne ñun jigéen ñi dañ ciy dajeek yow nga di ñu jàngal comme ni ngay jàngalee góor ñi yonent nangu taxut mu rey wo ndaw sa taxut ñu àtte ko dara nangul defal leen bés di ci dajeek ñoom te terewut jigéen ñaa ngi doon dem ca jàkka ja di fekkee la fa yonent bi wax ci alxuraan di ko jàpp umul fadli nee na suratu xaaf mi ngi ko mokkalee ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa ci bëri bu xam ne yonent daf ko daa xutba ajjuma ci noonu la mokkalee moom suratu xaaf kon ñoom daanañ dem ci jàkka ja yonent bi passé na loolu nee na xuzu nisfa diinikum min haadihi al-xumayra na ngeen jël seen gànn gi seen genn wàlli diine ci ndaw su xonq si muy nga ñëw ci socialiste yi ñoom itam ci na maanaam dix-neuvième doon nañ woote emoog nit ñi égalité nit ñëpp seen luwaay dëggal leen ci loolu Saint-Simon bind ci àqi liggéeykat yi bil quatre mille huit cent vingt Broden bind moom itam ci milkiya mbaalaam moomeel 1840 moom dafa jàpp ne moomeel sax nit warta moom dara ku moomeel dangaa sàcc Karl Marx bind le capital 1867 waaye ñoom ñépp seen wax yi fi mooy dañuy oote ne nañu goreel jaam yi goreel jaam yi yonent bi sallallahu alayhi moo leen moo leen ci njëkk lislaam fekk na fi ay jaam jullit yonent bi tëralal na ko ay yoon soo gorelee jaam bi goreel nga sa kë ci yow goreel nga ko ci safara loolu xiir la ni xiir na jullit ñi ku ci am jaam nga goreel ko nit ci soo rayee nit te tayoo ko su boobaa itam tànnloo nañ la nga goreel jaam su fekkee ne baalul ja diine yonent yàlla isa te daa topp bakkan ñoom mën nañ laa baal diine ji dafa wax ne dañ la baal diine yonent yàlla musaa ñoom dañoo wax ne nga fay diye yonent bi nag dafa boole ñaar yépp fa imma man nan baadu wa imma fidaan la yonent yàlla isa wax ak la Moussa wax yépp yonent bi daje su la neexee nga goreel jaam su la neexee itam wala su neexee ñi nga xam ne ñooy fayeeku baax Alfayda FM Europe nag suñ ñëwee tey di ñu wax affaire justice affaire yi nit moom boppam wala emo loolu de xanaa ci Europe muy marchandise moom xam ne ñoom duñ ko importer mu génn Europe ndax suñ génnee Europe song nañ ñoom ci seen réew yi ba not leen jël seen alal yi coloniser leen itam exploité yi am yépp bàyyee luñ leen dara kon suñ toogee fële naan ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo em su boobaa ñoom dañ ñoo bëgg a nax dëgg lislaam nag lislaam nag bam na nit ñee em rek dëgg la cosaan ñoo em ci juddu ñoo em ci fu ñuy mujj ñoo em itam ci nekk ay nit ndax ci benn bakkan lañu jële jëlee ñépp muy aadama aadama moom ci moom lañ bindee jabaram awa yàlla bind ci ñoom ñaar ñooñu ngir ti nga gis yépp ak fuj bën di nekk ci àddina bi kon doomu aadama muy góor muy jigéen xormaay seen deret benn la doomu aadama muy góor muy jigéen kenn yàq deri doomu aadama moo muy góor muy jigéen kenn warta yàq alalam kenn warta toroxal doomu aadama ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jullit jullit mooy mbokkam waroo koo tooñ waroo koo xeeb itam jullit daal doy na ko mbon mu xool bëti mbañeel wala bëti xeebeel loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi jàngal amoo droit ci yàq dëri doomu aadama bi wala amoo droit sax ci jëw ko yooyu yëpp ay ay droit la yoo xam ne góor ak jigéen ñoo ci emoo toggee fi lislaam yi itam góor ak jigéen ñoo ci emoo su la neexee nga jàng laaye ja ca innal aw suratul ahzab innal muslimina balaa fu yàlla tudd jullit ñu góor tudd na jullit jigéen ba laaye ja la yàlla dige yàlla dafa wax lahum rabbuhum anni laa udiu amala aamilin minkum min zakarin aw unsa baadukum min baad yàlla ne yàlla nangu leen seen borom nangu ne moom du sànk mukk jëfi aji jëf moo xam muy góor moo xam muy jigéen ne lenn ci ñun ñu ngi tukkee ci lenn lislaam itam may na jigéen ak góor ñu ñu moom li rijaali nasibun mimma tarakaw min maktasabu wali nisaay nasibu min maktasab na li rijaali nasibu min maktasabu wali nisaay nasibu min maktasab na góor ak jigéen faggu lépp loo xam ne yoon may na leen ko am nañ am nañ droit pour moom ko góor góor ak jigéen itam am nañ droit pour doon li rijaali nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun wa li nisaai nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun góor ak jigéen am nañ droit ci doon ca la nga xam ne seeni ñaari bàyyi wàcc nañ ko wala seeni jege ñaare wàcc nañ ko comme ni nga xam ni ko noonu la ko jigéen itam mën a amee nga gis ne droit yi ñuy ooteel jigéen ñi leen ci bu yàgg lislaam diine ju maandu la te yàlla ci boppam dafa tuddee boppam turwi wi yàlla alxakamul adl bokk na ci tur yàlla yi juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yàlla digle ko ne inna allaha yaamurukum an tuaddul amaanaati ila ahliha alfayda FM baynana al adl feneen mu ne inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa itaai dil qurba wa yanhi an alfaxshaai wal munkar wal bagyi yaizukum karum firikat yi nag bañ ñëwee bay firi laaye jooju ci adl dañoo wax ne adlu foofu mooy nga seede ne waruñoo jaamu kenn lu ma yàlla Ibn Abbas noonu la ko firee mu ne al adlu shahadatu an laa ilaha illa allah wal ixsaan adaau al faraid wax na dëgg ndax yàlla moo la bind soo ko fi rombee di jaamu keneen ku duut moom loolu tooñ la pour yàlla te tooñ mooy opposite yi maandu kon la maandu mooy nga seede ne benn buur bu ñu war a jaamu bu duut yàlla nekkut rafetal itam mooy lan mooy ponki lislaam yi ak farata yi nga xam ne lislaam teg na la ko mu a nga tegoo ko di ko jox suñ ne julli nga julli soo weeru koor a nga ñëw suñ ne woor nga woor soo amee alal ju ñu war a génne asaka nga génne ci asaka soo mënee dem màkka aji nga dem màkka aji walla mu ne al adlu xalul andaadi wal ixsaanu an taabud allah ka annaka tara mu ne maandu mooy ndend yépp nga simmi leen sànni leen rafetal itam mooy nga jaamu yàlla comme ni nga xam comme yaa ngi gis yàlla ci boppam wax wi nga koy jàmm ak itam mu teg ci ne nga bëggal nit ñépp li nga bëggal sa bopp su fekkee ne nit ki jullit la nga yéene ko yow liimaanam yàlla yokk gëmam su fekkee ne duur jullit nga yéene ko yàlla def ko mu nekk kenn ci jullit ñi yàlla ba mu diglee maandu itam digle na ak maandu nga jokk say bokk jokk sa bokk ci say bokk ci nan soo amee alal nga jox leen soo ko amul nga ñaanal leen yàlla yonent bi sallallahu alayhi wax na ne inna ajala taati thawaaban silatu rahim inna ahla albeyti la yakunu fujjaaran ma fatanmi amwaaluhum wa yaksuru adaduhum ida wasalu arxaabahum fatanmi amwaaluhum wa yak ida wasalu arxaabahum mu ne jaamu yàlla gi gën a gaaw mooy jokk bokk néeg bu nga xam ne ay saay-saay lañ waaye suñ jokkee seeni bokk rek seen alal yokk seeni seen ngirt laay jooju yàlla daf cee digle maandu yàlla duñ mu diglee maandu itam moom ci boppam buur bu maandu la suñ ñëwoon tey di waxal ñun itam mënta génn mukk li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ko ci sababi nuzuli surat wadduha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa màkka yi dañ koo mas a laaj ne ko dañoo bëgg nga indil ñu xabaar yi ñooñ Kahf yonent bi sans mu wax insha allah ngeen ma wax leen ma ma waxal leen ci ëllëg sa wax yu gi dog ñëwut ñetti fan ñëwut ñetti semaine ñëwut weer ba éefar yi mujj gi ñuy ñaawal yonent bi di wax ne yàllaam ji bàyyi na ko seytaane moom abandonné na ko amatu ñoom moom affaire mu nekk période boo xam ne yonent bi ci boppam daana xalaat yegg ba ci montagne bi rek waaye waxtu wu xalaatee ci loolu rek jibril dana ko feeñu ne ko maa lay géñal ci rabbul izzati ne yonent bi yàlla la bul def loolu nga gis ne yonent bi nit ñi tuumaal nañ yàlla ci xaqam ne yàlla bàyyi na ko abandonné na na ko yàlla mënoon naa ñëw rek weddi tuuma jooju maa waddaaka rabbuka wa maa qala waaye déedéet borom sharia bi mu yónni daf ñoo wax ba pare ne al bayyin mudda'i wal yaminu ala man ankar soo tuumaalee nit war ngaa indi firnde yow miñ tuumaal soo bëggee di tuuma ji war ngaa waat pour génn ci tuuma jooju yàlla léegi tuumaal nañ pour mu ñëw mu ñëw rek weddi te te te te géñut du mën a nekk ci sharia bi nga xam ba pare moo tax mu ñëw génn ci génn ci yor yor génn ci guddi dam mu leen demee tërës soog a weddi tuuma ji nga teg nañ ko ko ne defa bàyyi yonent bi daf ko abandonné yonent bi sallallahu alayhi moom ci boppam mooy borom sharia bi ci xare Uhud biñ nërmalee bàyyi taxam Seydina Hamza njoof ay cirab ba ko yonent bi gisee mu jooy géñ ne du jékki mukk lu may dana def ci waa Màkka juróom ñaar fukki ni dana leen def comme niñ def bàyyam noonu jibril wàcc ba mu wàccee mu jëg saaru naxli wa in aaqabtum fa aaqibu bi bisli maa uqibtum bihi wala in sabartum la huwa xayr su fekkee ne dañ leen a mettital na ngeen fayu lu em ni lañ leen def waaye nag su ngeen mu moo gën ñeel way muñ yi yàlla mi ngi fàttali yonent bi maandu benn bakkan lañ la defal nga fayu benn waaye benn lañ la defal danga fayu ci juróom-ñaar fukk déedéet loolu yàlla du ko nangu di léegi ñu koy jëfante sax ay yéefar la yonent far muñ benn yoon ndax muñ moo gën yàlla wax na inna allaha maa sabirin lislaam dafa digle maandu di ki ngay jëflanteet sax sa noon la alquran mu lay wax ne wala yajrimannakum shana'aanu qawmin adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa soo bañee aw nit bum la gàllankoor mukk ci nga maandu na maandu maandu moo gën a jege ragal yàlla suñ diine laaye wàcc na ci alquran pour seetal benn yahud yahud ba xam ne ab jullit la joteet ma ibnu abayra dafa sàcc benn mbubbi koŋ dénk ko benn yahut ba xel yi ñaawee moomu moom mu jël tuuma ji taqal ko yahut bi nga xam ne moom la dénkoon lim sàcc aw nitam itam ci fen yooyu ndax bëgguñ ñu gàcceel leen ci société bi wane na moom mi sàcc defut dara waaye yahut bi moo sàcc ba yonent bi sallallahu alayhi tuuti kon mu dëggal leen ci loolu waaye alquran wàcc di wax yonent bi sa ko wàcce nañ ci yow téere bii muy téere dëgg ngir nga àtte diggante nit ñi ci dëgg ci li nga xam ne yàlla xamal na ko te ñi nga xam ne ay wurujkat lañ bul nekk mukk seen aji layoo di leen layal yàlla sax ci li nga demoon ba bëgg a jéng ci wax ji nga xam ne ñoom wax nañ ko bul weranteel itam ñi nga xam ne uj seen bopp yàlla bëggut aji wuruj kuy wuruj kuy def ay bàkkaar yàlla bëggut ko ñi ngi nëbbu nit ñi waaye liñ nekkee yàlla umput yàlla Alfayda FM ndax yàlla waxtu wañ nasee la ñuy nas ci seen xol yàlla xam ne liñ nas ci xol yi te laaye jooju ab yahud la ci xaqi benn yahud setal benn yahud moo tax laaye jooju wàcc contre lan benn jullit bu nga xam ne moom moo defoon càcc bi su lislaam nekkutoon diine ju maandu kon loolu du ci mën a nekk mukk yàlla nag moom mooy maandu cent wax na ne faalun lima yurid lu ko neex moom yàlla mu def lu ko soob mu def te kenn du ko laaj laa yusal wa hum yusaluun kenn du ko laaj lu mu def la lu tax mu def ko li ma kay fa yépp kenn du ko wax ak yàlla waaye ak loolu taxut taxut yàlla may boppam mën a tooñ yàlla wax na ci xadisul qudsi ne inni xaramtu ala nafsi az-zulma wa ala ibadi ala fala tazaalamu araamal naa ci sama bopp tooñ araamal ko ci sama jaam yi ee eh, yéen jaam bu leen tooñante mu wax feneen ci alquran ne wama allahu yuridu zulman lil ibaad yàlla bëggul mukk tooñ ñeel jaam yi itam wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid yàlla lu tooñ mukk ay jaamam eh, gannaaw ñun suñ ci maandu googu la taxaw oote itam pour goreel jaam lu dem ci junne at ak ñeenti téeméeri at ca gannaaw émo googu ñuy wax nag ci diggante ni jubluwuñ ci mukk ne ñi baax ak ñi bon ñoo em déedéet ñi xam ak ñi xamut itam mënuñoo em ñi gëm ak ñi gëmut mënuñoo em ñu jëm aljanna ak ñi jëm safara mënuñoo em ñi nga xam ne yàlla may na leen gis-gisi xol bañ gis ñoom buñ duñu emoom mukk ñi xam ne yàlla dafa gumbal seeni xol alquran daf ñoo wax ne fa innaha la taamal absaar walakin taamal qulubu lati fi sudur yi ñooy gumba waaye xol yi ñooy gumba kon ñu ñooñu mënuñoo em ak mukk ñi nga xam ne yàlla may na leen ay bëti xol ñuy gis lëndam ak leer mënuñoo emoo ku bëgg a dab sa ji ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam bay xàq daf koo belal mu nekk jataay bu taaru ne majlisuhu majlisu xilm mun a jataay yonent bi jataay bu lewet la wa xayaa jataay bu am kersa wa sabr jataaya muñ wa amaana fihi l aswaat su yonent bi toogee ak nitam ñi kenn du nekk di yëkkati ci kaw wala tubahu fihi l xuram ormaay nit ñi itam kenn du ko gott ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam yonent bi itam duñ nekk di compte tarxiis yi dëggu yu tarxiis yi ca jataay ba loolu du ci am mutaadiliin ñépp ñoo am ci jataay bi yatafaadaluna fii bi taqwa ci ragal yàlla rek lañuy gënantee ci jotaayu yonent bi sallallahu alayhi kon jaam bu nekk war naa góor góorlu ci fexe ba ragal yàlla gannaaw yàlla mooy ki gën a ragal yàlla nit ñëpp ñoo emoo ku gën sa morom yaa ngi ko gëna ci ragal yàlla. Alfayda FM. yàlla bind maandu bind tooñ. nekk ku maandu digle maandu dilee diggante ñaari nit la sax soo mënta maandu nga em ci kenn loolu la wax fa laa xiftum allaa taadilu fa waaxidatan soo demee ba ilif ñaari nit maanaam ñaari jabar soo mënta maandu ci seen diggante yàlla soo demee ba àtte bay àtte nit ñi itam yàlla ne na wa idaa hakamtum bayna naasi an tahkumu bil adl ngeen di àtte nit ñi ngeen àtte leen te taxawal ko ci maanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam yàlla ne ko fa lidaalika fadu umirta wala tattabi ahwaahum wa qul amantu bima anzala allahu min kitaabin wa umirtu li aadila baynakum yonent bi ci boppam la digal na maandu ci diggante ci diggante jaam sa maslaa yow ci sa bopp sax su demee ba nekk contraire lu maandu yow su boobaa nga nekk ci maandu moo gën a moo gën a wér pour yow moo lay musalitam yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum aw ilwalidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw an taadilu yàlla mi ngi wax jaam yi ne buñ topp mukk bànneexi bakkan yi ba mu tere ñu walis maandu sooy wax nanga nga ci wax ji wa iza qultum fa'dilu soo demee bañ di la bindloo na soo demee bay bay dicté sax bañ di la dicté wala ngay dicté yow laay ji mu lay wax ne nanga nga maandu maandu sopp la luñ digle la itam te yàlla moo ko digle képp koo xam ne wuute gaag jëf jooju yàlla du na ko diggaale ak yow fii ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira te mooy opposité maandu nit ñëpp dañoo war a jóg pour xeex ak tooñ yooyu ba nga xam ne tooñ du fi taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani wa in lam yastati fa bi qalbi wa dalika adaafu liman képp koo xam ne gis nga ci law lu sibu nanga fexe ba xeex ko soo ko mënta xeex nga jéebaane ko ba borom doole dégg ko xeexal la ko soo mënul ñaar yooyu yépp na nga soog ko sib ci sa xol te ne na loolu mooy gëm yàlla suufe hadis boobu man raa minkum munkaran duut na dafa contredit maanaam duut contraire hadis bii wax ne ku suturaal jullit yàlla suturaal ko ndax laaye ja daf ko firi laa yuxibu llahu aljahra bissuui min alqawli illa man zulim pour wax wax ju ñaaw yàlla bëggut ko lu may ci koo xam ne ci xaq koo xam ne dañ koo tooñ koo xam ne li muy def baaxul ci société bi kooku mu ngi xeexal ñi ci société bi yépp ñu ngi leen di tooñ itam su boobaa taxawal ko ci anam yooyu dafa war ne ko ba nga xam ne borom doole mën na koo soppi muy gouvernement yi wala su fekkee ne yow mënoo jot ci gouvernement yi nga wax su fekkee ne borom xam-xam nga pour nga jot kilifa yi ca kaw ñoom itam ñu dindi ko soo mënul loolu yépp nag nga soog koo sib ci sa xol te loolu ne na mooy gën a suufe yàlla wax dafa wax ci alquran ne wala man intasara baada zulmi fa ulaayika ma alayhim min képp kuñ tooñ mu fayu gannaaw tooñ yooya mu ne kooko benn bakkaar waru ko ca fayu gam fayu Alfayda waaye tu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu wuñ demee ba ragal a wax tooñkat ne ko yaa tooñ rek mu su boobaa xeet woowu tàggu nañ leen ñu ngi ciy dund waaye nekkatuñ di dund ay dund ñu ngi dund di naan di lekk waaye ñi dee nekk ci bàmmeel sax ñoo leen gën ku tooñ dañ ko war a wax ne yaa tooñ te itam delloosi ko ci dëgg wax nañu ne na nga dimbale sa mbokk moo xam dafa tooñ moo xam dañ koo tooñ ñu laaj ko ko ñun suñ mbokk su tooñee xam nañ nañ koy dimbale suñ ko tooñee nag naka lañ koy dimbale mu ne su boobaa nga delloo mu njub loolu mooy dimbal la nga xam ne mën nga koo jox suñ dellusee ci liberté doomu aadama nga dem ca Union soviétique ñoom Mikhail Bakunin indi seen pas-pas yi nga xam ne lépp ay caaxaan la muy pas-pas yu yàgg yàgg di oote ne doomu aadama sax suñ dajee nii gëwuti sax warta am nit ñëpp dañ leen a war a bàyyi rek boyal leen ñëpp nekk ay gor affaire démocratie yi ñuy oote yëpp itam waru fee nekk ndax démocratie suñ demee ci parlement ba ñu ëpp ay vote dal di jël atte yéen ñeneen ñoo xam ne su boobaa loolu itam démocratie la loolu moo tax ñoom ñu contre démocratie li li ñuy woote mooy ñu bàyyi nit ñëpp ñu nekk ay gor doole ju leen di walla luwaa boo xam ne daf leen di tënk loolu yépp waru fee nekk doomu aadama daal na def lépp loo xam ne rek bëgg-bëggam wala pas-pasam walla aynaam ñëw na ci xelam rek mën naa def loola te bum ragal ñu mbugal ko gannaaw bum jëfee jëf jooja xaq yooyu wala liberté googu du liberté ba tey mu ngi niroog liberté bi nga xam ne rek européens yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko lëggéeyal seen bopp doomu aadama soo ko dimbale ko mu jàng dimbale ko mu liggéey dimbale ko mu am ci olof dañuy wax ne góor bala ngaa nekk góor dangay ngay ci dara soo dimbalee nit ki nag ba mu jàng xàmmee ràññee nekk doomu aadama bu am xam-xam su boobaa nit kooku dana mën a goreel boppam sax ci bëgg-bëggi doomu aadama yi nga xam ne dafa suufe waaye ñoom ba ñuy wax loola itam ñi ngi ragal jàngal jigéen ñu ne ndax jigéen su jàngee loolu dafay uuteeg xebu jigéen waaye déedéet jigéen kay su jàngee dana xàmmee ak lu bon fii ci Kaolack xam naa benn jigéen wax na ma benn bés mu ne ma wax wax ju niroog jabar yi abu ba ñuy jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent ne leen du ngeen njaalo hind na awataznil xorot jigéen ji daf maa wax ne ma jigéen ji dafa wax yonent dafa wax ne du ngeen njaalo mu ne ndax gor war naa njaalo ndax gor dana njaalo sax jigéen ji ma doon waxtu wu ma suma doom dafay tukki lu bari waxtu wu ma jaaxle ci affaire am damay jàpp ba set julli ñaari rakk wax yàlla ne ko su fekkee ne mas naa uru ci sama jëkkër ci alalam wala ci sama jëm yàlla bu ma déggati sama doom su fekkee ne nag mosuma koo uru balaa bët a set na sama doom oote mu ne balaa bët a set dana ko oo loolu jigéen ju nekk fii rek la kon gor jigéen kay su jàngee ba xàmmee loolu daf koy def gor gor gu nga xam ne li ñuy tere yépp du ko def li ñuy sib yépp itam kenn du ko ci dégg waaye seen freedom boobu ñuy oote maanaam liberté boobu dem na ba ci ne doomu aadama war muy jàmm balaa nit kee gore dëgg dëgg affaire yi doom yàlla ju ñuy jaamu sax dafa waaye loolu yépp wuute naag lislaam ci ni mu gisee gor lislaam soo amee jaam nga goreel ko soo goreelee jaam nga goreel sa bopp itam ci jaamu loo xam ne duut yàlla lislaam ba muy ñëw comme ni ñu ko waxee woon ci mujtama boobu la fi fekk waaye ak loola yépp libéré na jaam yi ca jamono yooye bunt yi nga xam ne daf daa ubbi bunti nekk jaam lislaam tëj na ko lum man mën léeg nit daana le bor bi tegula la diis ci sa kaw ba dootoo mën a fay nga mujj nekk jaam yi kala lebaloon lislaam dindi loolu mu des benn bunt mooy buntab xare xare itam suñ la suñ lislaam mas ta jóg pour xare ji pour imposer boppam waxtu wu jógee pour xare rek daf doon xare pour défendre boppam ndax su fekkee ne lislaam dafa imposé boppam kon ñii daal ñii ñëpp ana kan moo xaree ñoom pour ñu dugg ci lislaam kenn xareewutal ñoom ñëpp ci seen coobare bakkan ci lañ duggee ci lislaam boroom xam-xam yi ji Europe tey di dugg ci lislaam ana ñan ñoo xeexal ñoom pour ñu dugg ci lislaam boobu benn nit benn nit xeexutal ñoom lislaam sax gannaaw sulxu Xudaybiya ñaari at ya ca topp di dugg ci lislaam ci ñaari at yooyu moo ëpp li dugg ci lislaam ci ñaar fukki at yi ko ji te yonent bi doon xeex ak xam ne dañ doon ñëw pour xeex ak ñoom ci jamonoy jàmm ci la lislaam gën a tasaaroo ci jamonoy ay doomu adama bi yàlla daf koo may liberté ci boppam laa ikraha fi diin forcé wuñ benn nit pour mu gëm su la neexee su la naqadee nga wedd loolu loolu la loolu la lislaam wax diine yi ca des nag danga nga gis ñu forcé nit sax pour gëmloo ko wala di ko nger pour mu gëm loolu yëpp ñun amuñ ko ci lislaam ñi di nekk lislaam yëpp seen coobare bopp lañ ko nekkee ndax yonent bi sallallahu alayhi yàlla leeralal na ko ne nit ñi kat man su ma neexoon walaw shaa rabbuka la amana man fi l ardi kulluhum jamian afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin su neexoon sa boroom ñu nekk ci kaw suuf ñépp kenn du des ñépp dinañ gëm kon dafa soobut sa borom ndax dangaa bëgg a forcer nit ñi bañ nekk ay ju ay pour ooyee falal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko risqan nahnu narzuquk nee na na nga digal sa ñooñ ñu julli te nga sax ci digal yooyu wala te nga muñ eey laajuñ la sa wërsëg ñun yàlla ñun ñoo lay wërsëgal waaye bàyyi daan nañu wax na yàlla wax na ci biir wërsëg bay gëñ ne moo ko garanti waaye taxul nit ñi gëm ko lislaam nag ba mu ñëwee oote na nit ñi dañoo war a emoo goreel nañ traité ñëpp te teg ko ci maandu wax naa leen léegi européen bi ñu ootee ñoom liberté lan lan lan lan lañ ci jublu waaye Union soviétique ba ñu ko ootee lan lañ ci jublu seetal ñi doon oote diine mbiri diine itam bousine yi ba ñu ootee diine ne mbooleem classe ci société bi dindi nañ ko waaye dañ caa teg condition ala foog nga nekk ci seen diine ji moom nit ñi soo ko nekkul ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ca diine ji ñoo la gën ca réew yi Faris ñoom itam bañ ootee ñoom dañoo gën ne seen buur ya foofa deret di jógee ci yàlla ça fait que kon ñoom ñoo gën nit ñi demoo ñoom ndax seen deret deret yàlla la yawut yi ñoom ñoo jàggati ñépp ne ñoom ñooy euh, ñi xam ne yàlla moo leen tànnal boppam wax sax ne nahnu abnaullahi wa ahibaau ñun ñooy doomi yàlla yi ñooy ay soppeem ñun nit ñépp ñoo leen gën soo amee sa yërmande soo amee sa ndimbal soo amee sa mbëggeel na ko jox te araamal ko ci képp ko xam ne duhut ci yahut riba jëflante ci riba ñoom ak njaalo ñoom daganal nañ ko ak yahut ak ku duhut yahut araamal ko ci képp ku doyëg ñu ne sooy jëflanteeg sooy jëflanteeg ku duwut yahut na nga jëflanteeg moom ci riba ndax yàlla sa borom barkeelal la sa jëflant sooy jëflanteeg yahut nag bul jëflanteeg moom ci lu la lislaam nag yooyu yépp daf ko dindil nit ñi yemale leen ay na ñépp jàmm itam teg ko ci maandu teg ko ci xam-xam teg ko itam ci diisoo diine ji diiney diisoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax ci moom ne mësu ñoo gis nit koo xam ne bari na lu muy diisoo ay nitam comme yonent bi ci boppam yonent bi suy xare ji dana diisoo xare ba badar bi nga xam ne moom la njëkk a def dam taxaw medina ba mu cay jëmat dajale na muhajirin wal ansaar laaj leen miqdaad moo ko tontu demal foo jublu ñu jublu fa mu ne wax leen wax leen mu waxaat ko ko mu ne wax leen wax leen Saad ibnu mu ne ko yonent bi dafa mel ni ñun waa lan saar ngay déglu mu ne yéen tigi laa bëgg a déglu fi mu mu ne ko demal duñ la wax mukk la nit yi Moussa ya waxoon Moussa isab anta wa rabbuka fa qaatilaa innaa haahunaa qaa'idun waaye demal yaag sa borom fu ngeen dem ñu àndak ak soo xuusoon géej gi xuusloo ñu ko ñu xuus ko ànd ak yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko wa shaawirhum fil amr xare Uhud na ah, indi ni mu gisee ndax yonent su daa wax ak saxaaba yi daan nañu ko laaj ne ko ndax lii wax yu la kenn du ci teg dara wala su fekkee ne sa xalaat la yow jógewut ci yàlla su boobaa ñun am nañ luñ ci teg su fekkee nag ci yàlla la jóge su boobaa ñun am nañ dañuy ci xare Uhud ba mu dem diisu na gaa ñi wax opinion am gaa ñi tànn leneen mu tànn loola ak ñoom bañ demee ñu dàq leen waaye taxut mu bàyyi diisoog ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla musaloon na ko Fayda FM ci ñàkk diisoo sax su defoon njuumte sax alxuraan dana wàcc defaral waaye diisoo googu pour jàngal ñi ñi ci topp ci gannaaw gi moo taxoon yàlla di wax ak moom naan ko wa shaawirum fil amr yàlla def diisoo sax walladina stajaabu li rabbihim wa aqaamu salaata wa amruhum wa mimma razaqnahum yunfiquun ñi nga xam ne nangul nañ seen borom di taxawal julli juróom te seen mbir mooy diisoo ci seen biir te lañ am ñu cay dundale te yàlla tax diisoo noonu la fooree ci suñ diine moo tax ñuy wax ne mooy kennul démocratie ci lislaam yonent bi muccoon na ci ndax wilaaya al walaaya zamaniya ak wilaaya nubu nubawiya aw nabawiya yépp la boole woon walaaya mooy fale àddina yi wilaaya mooy li ngeen xam kon kooku mënoon naa ñàkk a diisoo waaye ak loolu daf daa bàyyil ko ñen ñi nga xam gannaawam mu ñoom sidna Abubakar ñoom ñëpp ñu teg ko ci wax yonent bi laa taata li fi masiyatil xaaliq kenn du topp kuñ bind kuñ bind amul topp mukk ci kaw kenn feeg topp gi ci mooy yàlla la nekk sidna Babacar bis biñ ko njëkk a élire pour mu nekk xalifa jaayanteeg moom ba mu xutbaa dafa wax ne inni wuli wulliitu aleykum wa lastu bi xayrikum fa in axsantu fa ayinuni wa in asaatu fa qawimuni nii kat fal nañ ma ci seen kaw waaye taxut ma gën leen su fekkee ne rafetal naa na ngeen ma dimbali su fekkee ne ñaawal naa nag na ngeen ma jubbanti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi nekkoon yàlla tànn ko fekk ko itam ba nga du juum mukk daan wàcce alquran ci moom man nag damay topp li fi yonent bi bàyyi waaye duma fent mukk lu bees gannaaw teetaane bu may gaar comme nit ñépp su fekkee na jubal naa topp leen su ma dëngee jubbanti leen saxal itam ne topp mi ñu ngi ñu lay topp feeg topp gi mi ngi nekk topp yàlla ñoom ñépp loolu lañu wax ma ataatu llaha wa rasulahu fa in asaytu llaha wa rasulahu fala taata li aleykum feeg maa ngi topp yàlla ak yonent bi topp leen feeg toppatuma leen nag mooy seen digal su boobaa waratu leen ma topp ñoom ñëpp leeral nañ loolu ci seen wax sidna Omar topp ci gannaawam na loolu atiuni mastaqamtu fay ni awajajtu fa qawimun feeg maa ngi jubal na ngeen ma na ngeen ma topp su ma na ngeen ma jubbanti ñu ne ko waxtu woo dëggee rek ñun dañ la jubbanteeg suñ jaasi yi Omar teg ca lan ni alhamdulilah ni gërëm yàlla mi nga xam ne def na ci samam topp ñi ñoo ñi ñoo xam ne dongoonte ñu jubbanti ma ak seeni jaas maa ngi ñëw na jullit ñi séddoo ku nekk am benn mbubb sidna Omar ñëw ci àjjuma teg la ñaari mbubb bi mu ne ittaqullaha wasma'u wa ati'u na ngeen ragal yàlla te dégg lii may wax te topp sale ko dégluwuñ la toppuñ la ba nga leeral sa ñaari mbubb yi naka la deme ñun ñëpp ñi ngi am benn mbubb yoo nga tegale ñaari mbubb mu ne ana Abdullahi ibn doomam jógal ne ko jógal tontu ci wax ji Abdullahi ne biñ seddalee mbubb yi man amoon naa naa suma bàyyi dafa njool benn mbubb dafay gàtt ci moom moo tax ma jox ko suma bos mbubb wala bosam amu na ko léegi kon continuer sa wax ji nga déglu danañ topp ba mu leer taxaw na ci min baritam di wax pour wàññi cani jigéen ñi jigéen jóg ca mbooloo ma ne ko naka ngay wàññee suñ can yi gannaaw bu yàlla waxee xintaar te xintaar lu am valeur la alal ju bari la ca saasa rek sidna Omar wax ne Omar juum ji wax na noonu la la lañ lay wanee Omar naka la nekkoon nit ku maandu jamonoom itam bëggutoon tooñ ci goreel nit ñi itam doomi Amr ibn al-As ca Misra dafa rawanteeg benn xibti xibti yu ba raw ko maanaam benn benn égyptien ba mu karwaas di ko dóor ne lu tax nga may rawante yow nga di ma rawte man maa ibnul akram yi maay ñaari way tedd yi kooko dem ba dina dem boole ji ca Sidna Omar Sidna Omar yónnee ci Amr ibn As ne ko yaag sa doom jooju doon rawanteeg waa ji na ngeen ñëw uy si ma ba mu ñëwee ba toog mu jox ko yar ne ko fayul fayul xale ba di fayu di fayu bu xolam sedd mu ne ko dóoral ci boppi am boppi baayam bi itam lu ko matistaabatu mun naa sa waqat wala datum ummahatum axraaram kenn jaamloo nit ñi seen ndey yaa ngi ñu nekk ay gor xale ba ne ko man doomam moo tooñoon fayu naa ci moom moom defut ma dara loolu maandu la nit ñi ñaari xaaj rek ñoo fi nekk say mbokk ci diine wala say bind maanaam doomu aadama la ngay doomu aadama loolu moom ku du jullit ak ku du jullit ñëpp dinañ dugg foofu sa mbokk ci diine lépp loo mën a defal sa mbokk defal sa mbokki doomu aadama itam fekk xeexut ak yow pour génn leen sa dëkkuwaay bi wala xeex la ci sa diine su boobaa itam wax na ne mën ngaa jëflanteeg moom te teg ko ci maam ñoom ñëpp itam liñ liñ liñ liñ digle mooy emele emele nañ emele nit ñi sidna ali wax na loolu sidna omar wax na ko sidna babacar wax na ko te majorité bi su la ñu néew ci nit ñi mere itam su boobaa mere yooyu du la wàññi dara te soo gërëm looyee ci kaw mer ak majorité bi su boobaa loolu kenn bàkkaar la boo xam ne kenn du la ko baal duur sidna omar rek nen sët bu jógee moom <coughs> muy omar ibn abdul aziz moom itam moom la ñuy wax xaamisul xulafaayu rachidin ndax sidna moo xam ne moo ko jiitu woon ba mu demee ba yaakaaratu boppam muy samp doomam Yazid ne mooy nekk xalifa jullit ñi Abdourahman ibn Abi Bakar daf na ko lii ñun xamuñ ko woon njiit ci lislaam fàggutee fa koy maye waaye duut na ci deret rek la war a taxaw soppi nga ko nguur rek Omar mii nag bi ñëwee moom dafa wax ne jéggal na nit ñi pour ñu seet ku leen neex ñu jaayanteeg moom te moom ñu bàyyi ko ñépp taxaw xal moom itam am ne ay way daweem yu wax nañ ko wax na ko ndax wax na ne ala la taata li maxluqin fi maasi man ataa allaha wajabat taatuhu wa man asa allaha fala taata lahu atiuni ma ataatu llah fikum fa ida asaytu ko njëkki waxoon rek féeg maa ngi topp yàlla man ngeen maa topp su su moom mooyee ndigali yàlla yi su boobaa ama topp ci seen kaw ci nguuram itam moom moo oote woon ne képp ku amee alal ba mu eegee minbar nañ ñépp indi may yiñ leen daa may te teguñ ko fenn dañ leen daa gën a la rek seen koo yu loolu du lislaam ak taa jabaram dina ko takkaay yi nga xam ne sa baay daf la koo joxoon rek te jëlee ko ci baytul maal te du dëgg benn nga yi wala nga tànn ma man soxna sa ne moom tànn na nekk ak Omar ba Omar demee ba génn àddina sax magam magi ndaw si xalu ne na ko soo bëggee ma delloo sa takkaay mu ne ko man ma suur ko ci dund Omar xaar ba muy dee ma di ko jëlaat génn naa ci ngir yàlla dootuma ci dellu mukk nangul leen fat leen xanaa du ne diine jooju moom la ñuy amee ba tey ndax yonent ba mu ba muy ebal gaa ñi wax na buuram fa boo xam ne duñ tooñ kenn ci suufam fa innaha ardu sidqin toog ba yàlla indee faraj li yàlla wax ne suuf sa suufi dëgg la duñu fa tooñ kenn ay salaam wax ko dañ ci déggee ne lislaam xeexut ak benn dëgg lislaam dëgg rek lay ut dëgg waruñoo xeex dëgg fen rek la war a xeexat boo mu jullit ñi demee xabashe osmati ko waa Quraysh topp leen yónnee ca Najaasi abdullah ibn abi rabiat ak amr ibn amr ibn al-aas boobu nag ak seen addi ak yépp di ko ñaan ne jullit ñooñu daw ñëw ci yéen juróom-ñetti fukki lu topp dañoo bëgg nga delloo si leen la ju ma leen delloo feeg tooguma ñoom ñu bokk wax seen diine ju bees ji bañ leen ooxee mu ne leen seen diine ji nga xam ne fasanti fasantikoo ngeen ak seeni bokk ci diine ji te dugguloo nit ma nekk wala ci jenn diine ji ci dina yi ñu xamoon jaafar na ko ñun kat dañoo nekkoon niti jaahiliya nit ñu rëy di jaamu ay xëram di lekk médd di def lu bon di dog suñuy jegeñaale di ñaawal jëm ci suñuy dëkkandoor ku am doole wan ku ñàkk doole sa doole ba yàlla yónni ñu yónnee ci ñu yónnent bii nga xam ne xam nañ xam cosaanam ci suñ biir xam dëggoom xam kóllëreem xam fegoom mu ooñu ci jaamu yàlla bi nga xam ne jën yàlla ci dëgg lu mooy moom ñu uyu ko alfayda itam ca diiney baay nga xam lu mooy jaamu ay xeram ñu dëggal yonent boobu gëm ko topp ko suñuy mbokk suñu nit mbugal ñu ci suñ diine pour delloo ñu ci lan delloo ñu ci jaamu xerem yoo xam ne ñoo koy ettal suñ bopp suñ nag suñ dëkk tànn la ci nit ñëpp yow Najaasi xemeem nañ itam sa dëkkandoor yaakaar nañ la itam yaakaar na kenn duñu tooñ fi yow bi dégloo mu jàng dara ci alxuraan suratu Maryam dafa dafa dafa jooy ba ñëw tooy mu ne ko wax jii isaa di woon ci benn source lañ doon jóge daldi jàllar ci waa Quraysh yi ñëwoon pour den dem leen ñii duma leen jébbale mukk ah ba gaa yi demee waa makka yi ñu seetaat seen bopp ñëwaat ne dañuy fexe ne ko ñoom kat am na yeneen wax yu ñuy wax ci Mariam Isa ibnu Mariam wax ju rëy rëy la ñuy wax ci moom mu yónneewaat na ñëw leen comme ñëwee ah jaafar na ko ñun day li ñu wax mooy ne mooy li yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mooy ne yonent yàlla jaamab yàlla la roxo gu tukkee fa yàlla baat la bu yàlla sànni ci Mariama loolu la wax ci moom najaasi yi ca saasa dafa delloo kado yi nga xam ne waa màkk yi moom lañ ko yónnee woon dal di gën a jafandiku sax nit ñi ba gannaaw ga moom ci boppam mu gëm taxawaay booba najaasi yu taxawoon ñi contre l'islam di wax ne l'islam diine tooñ la diine la joo xam ne jigéen ñi amuñ ci xaq diine la joo xam ne dafay tardeloo di teewaat ñu toogaat wax Prince Charles doomu Elizabeth nga xam ne mooy buuri Angleterre tey yaayam bi tey nga xam ne su fi yaayam jóge woon tey moom mooy nekk buur am na benn conférence bu rëy bu mu joxe ci fat yi paas défendre ci l'islam sport dal di ci critiquer itam européens yi ak gis-gis bi gisee l'islam mu ne gi nekk ci diggante ñaari diine yi ñaari aalam la aalamul islam ak aalamul xarb ba tey mi te moom prince Charles wax na ne du nangu mukk ne réeróo boobu ñàkk xam moo ko def ndax jullit ñi su fekkee ne mat nañ billion tey ci àddina bi junnee million kenn warta réeré seen affaire Angleterre googu ju ay jullit ca nga fa juróomi téeméeri jumaa ma nga Angleterre France ñeent ñu judd fi mu ne rek kenn ka jullit la la kenn ka yaayam ak baayam jullit lañ ci ci waxtu yi ñu toll nii kon dootul diine joo xam ne waa Europe dañ koo war a réere dañoo ni Najaasi yu defoon ñu defaat kook ñoom su fekkee ne dëgg la li ñuy wax l'islam forcé wut kenn pour mu gëm seen yi dugg ci l'islam fi mu ne ba demoon ci kaw weer wi bu yàggut dugg na ci diine ji ñooñu ana kan moo leen forcé soo demeeti seen euh, armée lislaam dafa tasaaroo ci seen biir ba ilimaani ajjuma fal nañ ko bu yàggut pour mu jiite nit ñi ajjuma foofu ca kii ba ca quartier ba te Amérique ñu ëpp doole tey ci àddina bi ana ñooñu ku leen forcé ana ku ak ñoom pour ñu nekk ay jullit kenn suñ toogoon ak jullit ñi jéem a déggoog ñoom defe naa ne nooneel ak xeex bi dana wàññeeku li betam ni ku nekk lu neex nga nekk ci ñoom ñu ngi ci li leen neex nañ bàyyi nañu nekk ci leen neex xanaa duñ nekk ci leen neex ba pare forcé ñu ñun pour ñu fekk leen ci leen liñ nekk ah. lislaam ak masiix yi ak yahuudi dañoo nekk ay diine yoo xam ne sax waruñoo xeex ndax la gëm nañ ne yàlla kenn gëm nañ def lu baax dem gëm nañu itam ne àdduna bii lu mu yàgg yàgg dana fi jóge bés ci taxaw ñu àtt jaan ku def lu baax ñu fay la lu baax ku def safaan ñu fay la safaan gëm nañ itam xam-xam fonk nañ ko lislaam baat bi njëkk ci suñ téere mooy iqra yonent wax ne dation ci jullit bu nekk jigéen ak góor pour ñu jàng nga xam ne jullit kon amut amut ngantal jullit bu nekk dafa war a jàng ñu gëmee loolu ñoom noonu lañ ko gëmee kon xeex bi lan la prince Charles wax na ne ñii ñuy ooye intégriste duut na ci lislaam rek la diine ju nekk rek ñun ñoo xam ne loolu lañ leen war a tuddee te gouvernement bu jeng bay def ay tooñ waruñoo dëpp mukk di at la gouvernement booba def nañuy àtte lislaam li lislaam def lislaam lu baax rek la digle topp lu baax bàyyi lu bon sori ko ko mën a dimbale nga dimbale ko al muslimu man salima al muslimuna min lisaani wa yadi loolu la feneen sax mu ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba ma maa yuhibbu li nafsihi yuhibba linnaasi la wax foofu sax waxut jullit sa gëm du mat mukk feeg li nga bëggal sa bopp bëggaloo ko nit ñi te suñ ne nit ñi ku ku gëmanuñ ci loolu prince Charles wax na ne ñooñu ñuy tuddee intégriste loolu duut lislaam jotewut ak lislaam dara te la xewoon bu yàgg ci jamonoy euh, salaaxu dinul ayub bi xeex ya fa xewoon ak xeex yi xew ci Espagne gannaaw bi ba dëpp fi mu ne nii di ko àtte lislaam Europe tey ñëpp dañoo ragal lislaam fa ne lislaam benn danger la boo xam ne mu ngi ñëw pour tas seen de euh, pour tas réew mi dugal nit ñi ci ay matahaat yoo xam ne nekkuñ ci yoon jamono yële ca gannaaw dama mas a dem Amérique journaliste gannaaw bu ñu waxtaanee ba pare mu ma dama laa bëgg laaj ay laaj mën ne ko bismillah mu ne ma dañ ñoo wax ne diine lislaam amuleen place pour jigéen te óoluwu leen jigéen ndax yow ka jullit óolu nga jigéen ci sa affaire yi àddina ma ne ko naka la ñuy def ba duñ leen óolu ci suñu affaire yi àddina te yàlla mi bind nit ñi borom yi gën a màgg ñooñu pour ñun mooy yonent yi ñeent ci ñoom danga gis ne seen njëlbeen yàlla daf ko confier seen góor amul ca wàll yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi ñaari weer la am ci biiri ndeyam baayam abdoulaye génn àdduna yàlla wacc yaayam ba mu xëy judd nàmp ba fer ba am juróom benn at mu soog a tàggoog yaayam yonent yàlla isaa moom jaarul ci anam bàyyi sax sax jigéen rek ko yar ci ko jur jigéen a ko yar yonent yàlla Muusaa nga jàng xisaam ci alquran yaayam rek ngay dégg doo ci dégg bàyyam yonent yàlla Ismaayla bàyyam Ibrahima jël ko moo yaayam ajara ba ci àlli Màkka moom xam ne ndox sax amul fu mu bàyyi leen fi su yàlla yooyu mag yooyu ci loxo jigéen ñun duñ leen óolu ci suñu yëfi ji àddina mooy bi mu ne ma mu ne ma boobu leer na kon nag lu tax su ngeen di séddale miraas ngeen jox góor ñaar jigéen benn ma ne ko bala maa tontu laaj boobu nañ dem ci diine yi fi jiitu woon lislaam ci diine yahud jigéen baayam su baayam dee doom bi njëkk a rek mooy doon alal ji yépp jigéen liñ ko may ci tërikaay baayam mooy su demee ba mat a sëy loolu mooy wàllam ci la bàyyam waaye du doon lu bàyyam ci diine chrétien affaire yi miraas rottu ci sax tudduñ ko alquran rek moo dikk yàlla séddaleel boppam su jigéen di ndey su jigéen di jabar su jigéen di mbokk bu jigéen bu jigéen lépp seen cër ci alquran yàlla wéral ko am naa li tax ñuy jox jigéen benn jox jox góor ñaar suñuy takk jabar feccal suñuy tabax kër gi góor moo ko war a tabax suñu demee ba di ko luyee sax góor moo war a fay luyaa te loolu duwut na fi ne la commencé waaye ak jamono yonentu yaa yàlla aadama ba muy ba ko yàllay wàcc ci suuf doon na ko wax ne ko na nga wattu cheytaane falaa yuxlal jannati fa tashqa njëlbeen laay ji yàlla ñaar lay adresse waaye biñ demee ba toskare ci mbiru dépasse ñëw rek yàlla góor gi la adresse gannaaw góor moo enu yooyu yëpp yàlla du tooñ mukk jigéen ci benn boo xam ne daf ciy def lu ko neex góor jël ñaar yoon daf ciy joxe depas amee ci kër gi ma ne ko man mii di wax ak yow suma bàyyi dee na bu yàgg ñu seddale sama rakk jigéen jël benn ma jël ñaar benn mba jaay ko lu ko neex ñaaree ma jël ma wuti beneen xaalis teg ci sax pour def ko lislaam tooñu ko ci benn boo xam ne daf ciy def lu ko neex man ma jël ñaar def dépasse ah mu ma boobu itam leer na <laughs> ba demee ba semaine tegu ci mu ñëw mu ñëwaat ma ne ko Margaret danga am leneen looy laajaat tey ci diine ji mu ne déedéet tey damaa ñëw pour dugg ci diine ji alhamdulilah moom Alfayda FM moom noonu la duggee ci diine ji ñii lislaam itam di ko xeex xëy na suñu waxtaanoon ak jullit ñi déggoo déggoo mën naa mën naa am waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walan tarda an kal yahudu wala nasara xata tattabia millatahum yahud yeeg nasaraan yi duñ la gërëm mukk feeg bàyyi yoo li nga nekk topp seen diine ji waaye prince Charles bi waxam ji wax ju am yaakaar la te lu lu ko jiitu moom Elizabeth semaine bi koy nommé buur ci Angleterre lettre bi ba léegi mu ci archive bind na bàyyi ñes fii ci Kaolack ne ko ajjuma jii di ñëw buuri Angleterre nag ma ñaanal te wax mbooloo mi ñu ñaanal ma yàlla ah. te moom ku ne xam na ne moo jiite moo moo jiite Angleterre su demee ba gëm ne jullit mën na koo ñaanal yàlla nangu ko rek loolu beneen point la waaw ah. lislaam daal képp koy ñàkk a dégg moo tax nga di ko xeex waaye soo ko déggoon doo xeex ak moom ndax lislaam ñi ci nekkul sax wax na nañ leen may jàmm tey ci Angleterre comme ni ko buur boobu waxee ne na jullit ñi dañuy yokk dañoo doole lañ ci société bi doole lañ ci économie bi fi nekk économie am na ci ñoo xam ne ñu ngi liggéey ci hôpitaux yi góor lañ fa ay position yoo xam ne sax ay jullite ko fa amee ci seen hôpital yu mag yi ten ñooñu yàquñu fa dara waaye waxtu wu nekk ñu ngi ñuy sosal ay intégriste intégrisme ay baat yoo xam ne amul sax ci lislaam ñu di ko ñu di ko tudd di ko atte jullit ñi léegi kon nañ gën a fonk liñ nekk te xam ne mooy diine dëgg yonent bi naxut ñu diine jim indi diine dëgg la te taxaw su fekkoon ne diine joo xam ne ci nit rek la jóge amoon na jëmee jamono ci àddina yépp dignité fi nekkoon jullit mooy yonent bi koy oote jabaram Khadija sidna Babacar sidna Ali jeex na keneen ñen ñent yooyu keneen teguwu ci su fekkee ne mi ngi dox ba lislaam àgg tey junnee million ci at loolu wane na dina dëgg la su nekkoon diine fen jóge na fen mënta yàgg loolu soo mënee nax nit ñi jëmmi jamono itam jamono lépp diine tolérance la comme ni ko soxna si waxee léegi la la la la firnde ci jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na jabaram Aysatu ne ko xàmmee naa waxtu woo kontaanee ci man ak waxtu woo ma meree yonent bi ne mu ne ko waxtu woo meree da wax ne wallahi wa rabbi Muusa maanaam suy géñ wallaahi wa bi Moussa lay géej wa bi Ibrahima kontaanee ci yonent bi wallaahi wa rabbi Muhammad maa ngi génn ci borom Muhammad su kontaanee ci yonent bi su ko meree nag naan maa ngi génn ci yonent yàlla Moussa ci borom yonent yàlla Moussa maa ngi génn ci ndi yonent yàlla Ibrahima du fa tudd yonent bi mu ne yonent bi ba may wax loolu yàlla xam na ne yow rek yaa nekk ci sama loolu moom ci gàttal pour waxtaan kook yéen ci jataay bi ñu ngi dellu di gërëm al Alfayda FM. ñu ngi dellu di gërëm ministre bi yoo xam ne moom la président Abdou Diouf yónnee di gërëm itam président di ko ñaanal yàlla. kenn bi nga xam ne ci kawam ci dëkk bi ci réew mi ci nit ñi yàlla seddal ci xolam yàlla def naataanga ci réew mi yàlla def fi barkete saxal ko. barke yonent bi sallallahu Sisters in Islam, once again, I am here to welcome you and to say to you thousand welcome among your brothers, among your sisters in Islam, and to confirm it to you, we belong to one family. as long as all of us will say La ilaha illallah Muhammad, we are brothers and sisters. Allah says in the book, إنما المؤمنون the believers are brothers and sisters. Allah says in the book, Al-Muslim أخو Muslim. A Muslim is a brother to another Muslim. We are very pleased to have you coming from America, traveling all the way across the ocean to Africa to meet your brothers and sisters in Islam. That is Islam. You have to suffer whenever your brother is suffering. Likewise, you have to enjoy whenever your brother is enjoying. I know for sure that our brother Ibrahim Cham has done the job for you, has translated all what I have said in English for you. But with all that, I have to greet you, I have to welcome you, I have to express my gratitude to you and to pray for you and to pray for Islam in America and for our brothers and sisters in, Islam, in, in America that Allah fortify you and Allah protect you and take you back home and uh, also to help the religion of Islam. Don't forget to convey the message to our brothers and sisters in America. The Prophet ﷺ said, a Muslim, when he gave the definition of a Muslim, he said, a Muslim is him whom the other Muslims are safe from both his tongue and his hand. And when, when he gave the definition of a believer, He said, a believer whom other Muslims are safe with their lives, with their properties from him. He never used his power or his strength against any Muslim. And when he gave the definition of migration, in the case of Allah, he said, the migration is to migrate all what Allah forbids. Sheikh Ibra Tarano, he used to tell us the big walis like Sheikh Ahmad Tijani and uh, Sidi Abdul Qadir Jili would do anything except following Allah in his orders to do it and following him to stop where he wants them to stop. All positions Allah gave it to them as a gift. All people are equal except through taqwa. Him who, who have fear for Allah is better at the presence of Allah than the others. By your, righteous deeds, by your good behavior, you will be among the best people, but not by blood or by birth. May Allah help. May Allah protect us. May Allah make all of us help for this religion. and make the religion help for us. I am here to thank the President of Senegal on your behalf of all the facilities he's been making for us to get together, to meet with you in America and in Senegal, because if he did not like the meeting, he would have it. and you would love to meet me, I would love it, but no way. But he made it easy for all of us. That's why I am praying for him that Allah fortify him and give him long life and uh, give him blessing and make the for this country and for the people of this country once again thousand welcomes for all of you coming from America. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.